tey jii dafa am benn euh, salon bu ñu fi organisé tuddee ko MIP Sénégal waa MIP Sénégal dañu def ay salon dans la diaspora depuis huit ans tey ñu indi benn salon boo xamante ne dañ ko indi Dakar tuddee ko salon dellu si dellu si mooy nañu fexee ba ñi nga xamante ne ñooy nekk doomu Sénégal nekk bitim réew ñu mën dellu si am ay dëkkuwaay yu baax yu yu yu léegi nag ñoom dañoo woo ñi nga xamante ne ñooy ñi nekk dans l' écosystème de l' immobilier ñu ñëw toog ñun en tant que délégué général promotion de urbain Diamniadio et lac li ñu sas mooy nañu fexe ba jaay sénégalais yi li nga xamante ne mooy la ville nouvelle de Diamniadio ba nit ñi mën fee promoteurs yi mën fi ñëw tabax fa ay logement yoo xamante ne Sénégal bu nekk selon li nga amee nga mën a ñëw mën a dëkk Diamniadio ñu wàññi euh, xat-xataay bi nga xam ne moo nekk Dakar loolu moo tax tey ñu bàyyi suñu lépp ñëw jàppale ci salon bi fekk nañ ñoo xam ne proposé nañ ay yoo xam ne déjà ñu ngi sur Diamniadio gis nañ fi ñeneen développeurs yoo xam ne ils sont intéressés par Diamniadio li li nekk suñu mbir mooy nañu fexe ba promotion wu ville nouvelle yi Diamniadio ak Lac Rose nekk au cœur de de du quotidien des Sénégalais ba ñi nga xamante ne am nañ yéen euh, def tabax biir Diamniadio ci wàllu immobilier ak yeneen si wàllu industrie ak yeneen ñu mën leen faciliter ñu mën ñëw ba ñu man a développer Diamniadio ba de de développement ba dëkk bu nekk nekk loo xamante ne dëkkuwaay réalité boo mën a teg loxo lay doon xam nga président de la république Bassirou Diomaye Faye bi mu ñëwee li mu njëkk def mooy jub jubal jubbanti jubbanti bi mooy lépp li nga xamante ne jaarutoon yoon ñu jubban ko ba jaar yoon te loolu boo koy def foog nga jaar ci ay réforme taxawaay bi nga xamante ne président de la république taxaw na ko si wàllu foncier ñun ñëpp gis nañ ko léegi dinañ xaar président di leer na ne li wàllu jëm ci wàllu suuf euh, président diñ si gën taxaw taxawaay ci ba sénégalais yi am ci satisfaction li gën a tax tamit ñu ñëw mooy thème bi nga xamante ne wax nañ ko mooy ne nañu fexe ba je xale yi ñun tàggat leen ci wàllu immobilier ñu ma ñëwee salon bi fekk naa fi benn euh, formation ISEP bu Thiès ci gestion immobilière ñoom dañoo am formation boo xam ne sur deux ans boo xamante ne pratique bi mooy ëpp théorie bi Ah, waxtaan nañoo ak ñoom fexe nañu aussi ñu gën gën waxtaan ba mën leen jàppale ba yi nga xamante ne secteur yi nga xamante ne mën na absorber ay ndaw yu bari ak ñu nekkul ay ndaw sax mën a liggéey section boobu li président de la république wax ñu def si ak ñu accenté wu ci wàllu formation ñu mën leen accompagner ba ñu jëm ci wàllu formation boobu te loolu question immobilière bokk na si secteur yooyu.